الحمد لله الحمد لله رفيع الدرجات وباعث الرسل بالنبوات ومورث الفضل والكرامات ناشر الولاية العنايات وأشهد أن لا إله إلا أنت وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع آثارهم أبدا إلى يوم الدين عباد الله إن الروح من مخلوقات الله الجليلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى ولا تتلاشى أبدا وقد عظم الله أمره وأثنى عليها في هذا الكتاب الكريم القرآن في عدة مواضع وذكر وظائفها الرفيعة والروح في القرآن على عدة معاني مختلفة يقول تعالى نزل به الروح الأمين boki yi dañuy sant suñu borom ci lépp dañuy bàkk suñu borom ci lépp ndax kullu ma faala al jalil fa huwa jamil góor bu baax la ni lu yàlla def rek rafet na ñu di koy sant moom borom boobu ci doxalinam bu rafet moom mi tànn ci biir li mu bind mu tànn ca nit yeneen bindaafoo ñu tooñuñu ko waaye ci mbaaxam na tànn nit ci biir nit ñooñu mu tànn ci ay yonent ñeneen ña defuñu dara waaye coobare borom bi tabaraka wa taala mooy dox mu wàccee nag ngeneelam ak mbaaxam ci kaw suuf ba mu ko wàccee nag yóbbuwu ko def ko fi bàyyi saay su ndox wàccee ci kaw suuf nga romb tepp-tepp yi balaa ngay ñëw ngoon mu dem dafa am fu ko yàlla denc kon moom borom bi tabaaraka lépp lu mu wàccee dafa am fu mu koy denc waaye jalaatu ko borom boobu ci mbaaxam lay seet ku ko soow mu xaritoo ko yan la ñu yàlla xaritoo ci taxawaay bi nag di nangu ne yàlla boobu doxalinam bu mu teg nangu nañ ko bu dee ci alquraanul karim ci fiq bi mu waxee ne doxalee leen ni seen diine nangu nañ bu dee ci dogal bi mu wàccee ne lii laa dogal ñu nangu ko duñ ko ci xarab mukk jalla jalaal ndax mooy ki moom di seede ne ki mu yónni mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la mu yónni ko mu ñëw nag matee ndawam njàngale njàngale bu ànd ak yërmande waaye njàngale njàngale boo xamante ne doo ci fàttee ti ndax loo ci fàtte rek am na ku lay fàtte loolu yàlla ko def moo tax naa loolu la maa war a sant di ñaan ci yàlla yonente boobu mu wàccee ci moom yiw wàcce ci moom teraanga te boole li ci sallallahu alayhi wa sallam li ñuy tuddee ruux mooy laam bokk na ci li yàlla bi mu gën a rëy waaye yemu ca la muy rëy rëy def koo bind du disparaître maanaam du fi jógeeti dafay tox rek bi muy ñëw fii dafa am fu mu jóge ñu muul jëmb ji jëlee ko ci suuf daldi ko cay xoof nafaxtu fii mir kon am na am na fu mu jóge saa su demee ba ñu ne yaram ba jóge na fi ruuxu ba am na feneen fu mu ko dem denc ruhu bobu nak moy laam bi yàlla màggal mbiram tuddu ko ay yon ci alquran amul fenn fu ko ngagne ndax li ñuy tuddé bakkat amna fu ko yalla tàggee waye amna fu ko yalla ngagne inna nafsa la bis an nafsul mutmainna kon joxna na bi joxat ko beneen waaye bu dee ruuxu bi nag moom dafa continuer rek sell dafa doon loo xamante ne lu mat la bu koy tudd nag ci alquran dafa am terme ba la muy firi sens ba muy joxe te contexte ba nga koy waxee bu njëkk ba am na fu yàlla waxee ci alquran nazala bihi ar ruux al amin nee na ruuxu bu wóor boo xamante ne kóolute la lamboo foofu boroom xam-xam yi d'accord nañ ne jibril alayhi salaam moom la yàlla jox alquran mu wàcc ak moom ci yonente bi kon ruuxul amin seydina jibril alayhi salaam mu tàggu am na ci beneen sens bu mu ko waxee mu ne wa kadhalika ilayka ruuxan min amrina foofu la muy firi mooy alquran bii alquranul karim nga xamante ne melokaan la ci melokaan yu yàlla fa muy jeexale laay mu ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kon alquran mu tuddee ko ruuxu dafay dundal te bu la dundalee rek teg la ci kaw yoon ñetteel ba mu ñëw firi beneen sens mu ne rafiu darajaat zul arsh yulqi ruux min amrihi ala man yacha min ibaadi foofu ruuxu muy firi moom mooy yenkewal nga xamante ne borom bi tabaraka wa taala moo koy préparé caka ko soob def ko ci moom ndax boo demee ci yonente yi jëmm ji nga am taxaw loxo ba ci tànk ya yonent bi loolu la am taxaw uppalewu la dara waaye la nekk ci biir nag foofu la la uppale foofu la tuddee ruux moom la def ci yonent yi rusul moom la def ci ambiya yi moom la def ci awliya yi nga xam ne yàlla dafa liggéey baatu ala man yashaau min ibadihi dana ko def ci doom te defu ko ci baay bari na baay jo xamantene la yàlla def ci domam defu ko ci mom motax fo borom xam-xam yi dañu tuddé ilham te moy yenke wal ba moy al ilm al batini wala al ilm al laduni wala ilm al akhra moy ba khuda jangalon Seydina musa nga xamanteni yalla koy joxe way dafa am fu koy jaarale na dina ko def ci dom te du ko def ci bay dina ko def ci bay te du ko def ci dom dina ko def ci xarit te du ko def ci xaritam dina ko def ci rak te du ko def ci mak dina ko def ci mak te du ko def ci rak dina ko def ci xamaale te du ko def ca kamu xamal du lu nit di joxe moo tax nga gis ñaar ñu daje ci benn daara di jàng kenn ki yàlla def ci moom loo xamante ne ku bugg lu baax man ko faa wuti mi la ko Ahmad ibn Hanbal ca taalibi imam Shafii moo tax mu ne la nag du lu ñuy xiccoo lu yàlla di joxe nag ci coobareem danay firi ba léegi baatu ruux ba mu waxee ci alquran innamal masih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatu alqa ila maryam wa ruhun min wa furuhu sayidina isa bu salba lay firi mu ruhu bu sell bobu nak fa aminu bihi nangé ko nangul juromel ba mu joxe benen sens ba mu waxee ne ulaika kataba fi qulubihim al wa ayyadahum bi ruhin minhu foofu muy firi al wa sabat wa nasr mooy force ak jàppandal yàlla ne na maa ko def ci seen ruuxu ya mooy ñi àndoon bi sallallahu muy saxaaba ya moo tax ba muy wax ci seydina isa alayhi salaam mu ne wa ayyadnaahu bi ruuhil qudus nee na ma dooleeloo ko ruuxil quddus ruuxil quddus ñu góor bu baax gi cheikh al islam radiallahu taala anhu ñu koy firil mu ne mooy dëgg ju set wecc ruuxul quddus dëgg yoo xamante ne dafa set wecc alxaqiqatu asarfa yàlla nee na maa koy jël def ko ci kenn nga xamante ne dama koy dooleel lu mu song lu yàq yëgg ci suuf juróom yii nii boo demee ci alquran boo déggee ruuxu rekk génnul ci kaadar bii nii waaye am nag juróom benneel boo xamante ne nag foofu la ñu soxla tey yasalunaka ani ruux kuli ruuxu min amri rabbi ñu ngi lay laaj ruuxu bii dund ci yaram yow Muhammad tontu leen ne lu compliqué la kenn mënu ko xam bi nit ki juddoo muy dund am lu mu bugg am lu mu bañ bu dem ba faatu yegg si yaram boobu noonu mënatu la bëgg mënatu la bañ dara pour nga xam rëyaayu ruuxu bi ko yàlla jëlee dexeñ ko ci yaramu nit ki yaram bu tuuti boobu mu ubbi ci ay bën bën bët bi nopp bi gemmeñ bi ak yi nga xamantene moy bonbon pour nga xam reyaay ruuxu bon bon yoy nonu fum ci yundu rek def ci niyee xolal bot ni muy xol ni mu rëy xolal yow ni nga tuté ak bot bi ni mu tuté mo lay wonné la ca bir ndax ki dem be faatu gisatu parce que ruuxu ba nekatu fa waye fegu ba mo nga fa bu xolé da ngay gis muy gis aduna xolal fi mu tok mu mën a toog fii di dégg ay kilomètres xoolal lay génn ci moom bu dajeeg soxnaam rek luy dund jóge ca mu lay woon capacité li ñuy tuddee ak xoox moo ci Seydina Isa alayhi salaam ak Maryam mu yónni ruux nee na ma yónni ruux mu dem ca moom te mooy Seydina Isa alayhi salaam loolu lan la lay woon capacité li ñuy tuddee ak ruux ruuxu boobu noonu nag nga xamante ne dafay gane ci jëmm ci mën na fi am fukki at mën na fi am juróom fukki at mën na fi am téeméeri at waaye bés dana ñëw gan lu mu yàgg-yàgg dafay ñibbi mu war a jóg nag yaa ayatuwan nafsul mutma irji'e nga war a jóg nag delluwaat ñu ne ruuxu ba nekkatul ci jëmm ja nu ñu def jëmm ja yàlla ne dama fonk lépp lii fi ma ko defoon ruubu bu sell bii fi ma ko dugaloon te mooy jëmm ji dama dem ba jëmm jooju noonu ruubu ba ak capacité bu la laaloon ndax am na ñoo xamante ne boo feebaree buñ la tegee loxo mën nga faa jóge wer parce que Seydina Isa bu laaloon bu doon bu faatu woon sax mu dunda bu la xoolee ngir capacité ruubu ba mën nga faa jóge texe mucc jëmm jooju nga xamante ne nag ci la yàlla dugaloon ruubu ba yàlla ne jël leen jëmm jooju ngeen denc ko fii ci suuf ruuxu ba nag ana bu fan la dem loolu la jël si tey ci lu ci xëj ci taxawaay imaam ibnul qayim al jawziya dafa nettali benn xadis boo xamante ne saxiil buxaari indi na ak saxiil muslim bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajeeg yéeféeri ca ñu rëy ci yéeféeri lu mat juróom ñaar fukki nit ci jullit ñi ñu rey ci fukk ak juróom benn wala juróom ñaar ruuxu jullit ñi ak la muy sell ñu jël jëmm ya suul leen waaye même jëmm yéeféer ruuxu ba ca nekk dafa sell yàlla yonent bi ne nañ leen suul buñ leen bàyyi noonu ñu jël leen sànni leen ci benn teen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak Seydina Omar ba tiimu leen ne leen hal wajadtum maa waadakum rabbukum haqqan est-ce que li leen yàlla waxoon gis ngeen ko man de gis naa li ma yàlla wax Seydina Omar ne yaa rasulallah nooy waxee ak ñu faatu ba jëmm yi kese yi nga ànd ñoom mu ne ko yaa Omar gis nga ni may déggee ñoom ñoo lay gën a dégg li may wax waaye dañ ma ñu la tontu parce que barzax boo fa jaar kon ruubu yi ñi faatu ñi ngi dégg moom ñu ngi xam li xew moo tax boo demee ci chariatul islam mu ne boo demee ci xabri da nga ne assalaamu aleykum assalaamu aleykum siixa boobu noonu yonente bi joxe siixa mu xaataba la da ngay wax nit bu fekkoon ne ñoom nekkatuñu luy yëg kon yonent bi dañuy jox baatu assalaamu aleykum kon pour woon la ne ñi ci bàmmeel yi am nañu yëg-yëg dañuy jege trop ñaareel ba amr ibn al bokkoon ci saxaaba yonent bi bi mu demee bay faatu doomam abdallah ibn amr ñoom ñaar ay saxaaba la ñoom jooy jooy bu metti doom ji ne ko papa looy jooy jarul jooy ndax dégg naa ci làmmiñ ak yonente bi mu ne yàlla jéggal na la mu ne ko doom déglu ma boo fekkee sukuraat bi metti na ba jubal ci kaw miir bi doylu na ci àdduna soxlaatu parce que gis na la nekk ci kanam mu ne ko doom mu ne ko gis nga mbir mii ci ñetti étape la ma dabe bu njëkk ba bi yonente bi ne bëreet ne yàllaa ma yonni dama ko weddi moom naa gënoon na bañ ci kaw suuf ku ma joxoon ngànnaay ma jëkk ko dinaa ko rey rey bi gën a métti ñaaw ci rey moom laa gënoon na bañ ci kaw suuf buñ ma laajoon ne kan nga bugg mu dee ci kaw suuf tey ji damay wax ne Muhammad ne nañu toog diir yàlla jël lislaam dugal ko ci sama biir xol ma ñëw jàkkaarloog moom Muhammad ma ne ko damaa ñëw pour tuub si mu tàllal loxoom pour ma mën a tuub ma ne ko yaa rasulullah defal ndànk dama bëgg ci charte laay tuubee nag mu ne ko lislaam amul charte mu ne ko man ci charte laa ciy duggee mooy est yàlla dina ma jéggal li ma def ci erreur yëpp contre la yow sa personne ndax ku bari woon pexe la te ku ñeme woon yonente lu nekk def na mu ne loolu yëpp ndax yàlla jéggal na ma ko mu ne ko gis nga képp ku dugg ci lislaam loo doon def yàlla fàtte neena kep ko xamantene dem na aji lépp lu mu doon def yàlla farna ko ak du yàlla nam mo ne ci la dal di jël sama loxo talal ko dal di feñal sama l'islam neena dir bobu nonu buma faatu won wor na mané ne aljanna laa jëm ñu dox tuuti sallallahu alayhi wa sallam làkk neena aduna àdduna ñëwaat ci suñu mbir ñu dugaat ci ba mbir mi jaxasoo ci sama bopp tey jii may wax ak yow xaw ma fan laa jëm ndax wóor na ma ne def naa yu baax waaye itam def naa ay erreur waaye li ma bëgg yow doom mooy saay su ma dogee àndal ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ma gën a bëgg nga defar ma ba ma baax nga jox ma yàlla xam na man maykan waaye lenn laa soxla mooy. na ngeen toog lu mat waxtu waruma ci xabru bi pour ma man leen a wét wéttaloo ndax bàmmeel dafa wét dama bëgg ngeen toog tuuti lu mat waxtu ma man leen a wéttaloo ndax malaayka yi ñëw nañu di may laaj waaye bu ngeen toogee ci samay danaa am force Abdullahi ibn Amr saxaaba la Amr ibn al-Aas bii saxaaba la ña toogoon di koy fekkee ay saxaaba lañu ñu saxal ko kon lu wér la mooy kon nit bu faatoo dañu dugal ko ci biir bàmmeelam ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy wër di toog ci wetam mu ngi leen di yëg di koy seet mu ngi leen di yëg ñi koy ñaanal mu ngi leen di yëg moo tax boo demee ci alquran yusufa najjaar mu ne yaa layta qawmi yaalamuun rey bañ ko reyee ak choc ba mu àndal ndax dañ ko jël si amet jëlee ko ci bopp bi di koy dagg ba mu def ñaari xat lii lañ ko faatu ci soratu yaasin jaa rajulun boobu ay bokkam biñ ko gisee choc bi dañ du jooy jooy yu métti mu tontu leen ci bàmmeel yaa layta xaw bi yaalam yellante woon na ñii di jooy nii jaru ko ndax li ko waral mooy li yëguma ko bi maa faral li rabbi wa jaala li min al kay wax luy dund la luy yëg la lu xam la lu bugg la lu bañ la kon ki faatu bi ñu dugal ci bàmmeel ruuxam bi ba léegi mu ngi yëg ba léegi ruuxam bi mu ngi jëflante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy dund yi nga dem ci alquran mu ne la sa taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya inda rabbihim mu ne ni ngay dund foofu ñu baax lay dund nag kooku mën naa bokk ca lay dund yal na yàlla boole ñu ci ñu baax ñi allahuma ixfir li jamii mawtal muslimin wal muslimat alladina shahidu laka bil waxdaaniya wa li nabiyika bir risala wa maatu ala dalik allahuma ixfir lahum warhamhum wa aafihim waafu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi mudxalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم الحمد لله الحمد لله الذي لا يهمد على المكروه سواه كون بو نيو دغلو aaya بوبو dellu ci xadisu abu hurayrata radiallahu taala anhu muy nettali ci lameñ yonente bi moom yonente bi nee na maa min abdin yamuru bi qabri rajulin kaana yaarifuhu fi dunia fa yusallimu alayhi illa arifahu wa radda alayhi salaam nee na kenn ci yéen jullit ni bu rombe bu rombee kabru kenn koo xamante ne xamoon na ko fii ci àdduna mu jaar fa nuyu ko la wax nuyu ko la fa yusallimu alay nuyu ko la wax nuyu ba nag moo gën lépp moo tax bàyyil xel li ngay demee ci xabr baatu assalaamu aleykum yàlla na nga nekk ci jàmm gis nga ki ci bàmmeel jàmm rek la soxla dara gënu koo rek même boo demee ci xabru bi di baamu assalaamu aleykum assalaamu aleykum assalaamu aleykum bu la neexee na nga idaafa la mu doon ci yow ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza maanaam maa ngi lay nuyu asalaamu aleyka yow nga doon loolu moo gën a rëy ci dem ziyaare ji kabru ndax ki nekk ci biir xataay ba fa ne weetaay ba fa ne moo tax yonente bi ne fa yusallimu alayhi mu ñëw ñaanal ko lu jara baye bàyyi xel la kenn du dem ci xabru di ñaan borom xabru bi te dafay xew ci jamono doo dem ci xabru di ñaan boroom xabru bi ne may ma yow diw sàngam shirk la waaye dangay ñaanal borom xabru bi boo ñaanalee borom xabru bi mën naa bokk ci ruuxu yi nga xamante ne dañuy sowe ndax am na ruuxu yoo xamante ne ni ko yàlla waxee ci aaya bi léegi dem nañu waaye ba léegi dañuy def intervention ci kaw suuf bi dalil min al quran min al hadis seydina Moussa alayhi salaam bi yàlla bi yonente bi demee rañaani yàlla farataal juróom fukki junni julli ci suñu kaw waroon na diis trop ku ko doon man ji juróom fukk par bés seydina Moussa moo wax yonente bi ne ko dellul mu wàññil la delma mu wàññil la kon lu mën a nekk la mu dellu ba yàlla wàññi ñu ko mooy juróom kon tey jii nii ruuxu kese bu àndul ak jëmm moo ñu sawe fu ñu fekkew ndax moo taxaw ne demal mu wàññi la demaatal mu wàññi la demaatal mu wàññi la ba tey jii nii mu doon ay juróom kon ki faatu ruuxam man na contine di intervenir di liggéey yépp a ngi ñëw ci kanam moo tax mu ne fa yusallimu alayhi nga nuyu ko illaa arifahu moom ci boppam dina ko xam wa radda alayhi salaama daldi koy delloo nuyoo ba xoolal moom mu ne la assalaamu aleykum wala mu ne la wa aleykum salaam ruuxu bu sellee noonu mu ne la wa aleykum salaam foo jaar texe moo tax mu baax ngay war a jóg léegoo-léeg dem ziyaare ji ñi faatu parce que mën nga faa jëlee texe boo ne assalaamu aleykum sa bos mën naa ñàkkaa nangu ngir say erreur waaye moom ma fa nekk ci selli ba bu la ne wa aleykum assalaam man nga faa jaaree texe man nga faa jaaree mucc te boo demee ci xadis dafa am benn góor goo xamante ne alquran dafa wàcc ci moom li yaa ayyuha alladina amanu laa tarfaw aswaatakum fawqa sawti nabi góor goo ñu ko doon tuddee sabit ibnu kays bi aaya ba wàccee dafa dugg ci néegam tëju parce que yàllaa wax ne bu leen di yëkkati seen baat ci wetu kilifa bi Seydina Muhammad sallallahu ba mu ko déggee mu dugg ci néegam tëju mu ne duma ma demat ci yonent parce que mu ne sama baat yàllaa bindee noonu baat dafa am noonu la yàlla bindee buy wax ci suuf sa baat bi dafay kawe mu ne te damay bañ a sànku xaaral ma toog fii rek sama rukk yonent bi toog jamono gisu ko mu laajte ñu wax ko li mu wax mu ne wooleem ko ñëw mu yow mu ne ko yow bokkoo ci parce que du ñàkk teggin nga koy defee geste bi ba mu ne du ñak teggin moo tax nga dikoy def aya alquran wàcc inna laa la muxtaalin fa xuuri mu man tam mati mune parce que buguna def lu bax be nit ñi xamne man lu bax lay def mu tok di joy ñu ñëw wax ko yenn yoon ne ko yow bokko ci parce que defo ko ngir lenen waye dang koy def ngir yalla pour ñu mëna xam bax rek kon bobu itam gis nga inna man amal ya mama nak moy bi yonente bi démé mu am ku wootoo ne moom yonente la musalimatul kazzab sahaba yi jóg tak sen digg ne li dina fi jog ñu nekk ci xex ba bi gaay daw mom ak ben xaritam dal di téyante ci loxo ne bañu yand ak yonente bi andé wuñu ni ak mom kon nañ delu wat ci sosan dal di taxaw xex ak yéféri bañu ñu bañu démé ba am ñetti fan mu am ku mu feeñu ci gént ne ko dema yoon yónni te moytul nga ne lii gént la te moom faat nañ ko ba pare mu ne ko gis nga sama yére bi ma soloon di ko doon xeexe mooy kon bi dafa am valeur diw sàngam moo romb ñu faat ma mu summi ko jël ko yóbbu ko mu ngi ko ci fee ci béréb bee demal mu jox la ko bu la ko nangu la jox wax ko kilifa bi mooy xale Xaalid ibn Walid moo leen jiitoon cexe ne boo ci jotee na ko yóbbu ba ci Abu Bakrin mooy xalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nga ne ko dama bàyyi njaboot te dama am ay bor sama yére bii rek laa am nag nga ne ko na jaay yére bi lum ci am mu jàppale ma yokku ci ba fayal ma samay bor samay bor waa ne bi rek dal di jóg dem top waa ji fekk ko fa mu nekk mu ne ko diw sàngam xam nga ko yaa ngi ko rombu yérem bi mu ne ko kooku mooy kan mu dal di xool ci bi ne bi gis fi yére bi fi mu teggu fi mu ko waxoon mu ne ko diw sàngam wax ko ni mu demee ba ko joxee yére ba mu ñëw ci Xaalid ibn Walid Xaalid ibn Walid moo ko mu dem parce que wura doxi mission boobu et pourtant kii doxloo mission bi ni fatuna bu yak mu déparé foofu dem Madina dox guddi dox bëccëg yegg si ci Abu Bakr ni Siddiq ne ko lii ak lii moo xew keroog naa Abu Bakr dafa woote saabe ñu daje mu ne ñu ngi door a gis nit ku faatu dem ba faatu ba pare joxe ndigal ci alalam ak njabootam ñu di ko koy def loolu mësuñ koo gis kon pour wol na ne pourtant kii ruuxu la faatu na ba suul ko waaye mu ngi des ci kaw suuf di intervenir comme ni nga xamante ne ibnu Juzama ba léegi la pour dëgëral kàddu ko yàlla bi ñu dogalee ñu ñëw ma mu madinatul wara yonente bi boole leen comme ni mu defee noonu boole du ñaar ñaar ne ci sa mbokk la ñoom ñaar yonente bi boole leen ñu toog ci seen nàkk ba di waxtaan kenn ki dal di ñaan awfu la ak ibnu Juzama awfu ibnu Malik ibnu Juzaama dal di yëkkati loxoom ne yow yàlla maa lay ñaan ñu ñaar ñi ku ci njëkk a faatu yal na ko moroom bi gis lu muy defal ci gannaaw mu defaral ko waa ji ne amiin aw fi ibnu Malik moo tax bàyyil xel di ñaanal nit gis nga boo ñaanalee nit mu ne la amiin sa bos mën naa ñàkkaa nangu waaye bosam moom dina nangu boo ñaanalee nit lu baax mu ne amiin danga dina ko dal moom dana am yiw boobu yow tam nga am ci waaye boo ko ñaanalee musiba mu ne amiin na la wóor ne musiba ba ci sa kaw lay dal waaye du yegg ci moom ba mu faatu moom ibnu Juzaama ñu toog lu mat loo xamante ne mat na at xarit bi dal di koy gis ci gént mu ne bam ko gisee ci gént mu ne kon lu la yàlla def nag bi nga yeggee ci yàlla sa audience ak yàlla nu mu demee mu ne ko jéggal dama de waaye fii ak amoo metti te kii saxaaba mu ne ba mu joxee gannaaw noonu ñuy wax ma gis benn tupp tupp bu ñuul ci dokk wet wetu dokk bi fii de ma ne waa lii nii li ngay faatu nekkuloon ci yow di lii lan la ni mu ne ko lii daal bor la fukki dërëm asharatu danaane fukki dërëm laa leboon pour yóbbul ko sama njaboot far gaañu ci diggante bi benn yahud laa ko yore fa ko denc gisuñu ko te yëguñu bor bi fi nekk nii loolu moom ma topp nii tupp tupp boobu mu ngi dis gën ci man nii fu ma dem ñu laaj ma ko lii lan la li fukki dërëm fukki dërëmu la yóbbaale ci bàmmeel yoo xoolal téeméer yóbbaale junney jàmbur yóbbaale fukki junne yi yóbbaale millions yi jàmbur dugg ak moom ci bàmmeel yoo moo tax bàyyi ci xel balaa ngay dugg ci bàmmeel defaral sa digganteeg nit mu ne ma gis nga alal ja maa ngi ko denc ci baraab béréb sàngam boo demee nga fexe jëlal ma ko dem feyal ma bor bi ma ne ko danaa ko def ci biir gént mu ne ma ne ko waaye yow doo ma laaj sa njaboot mu ne ko lu ma la ci laaj li ma ci xam yow xamoo ko di li ma ci xam yow xamoo ko maa lay gën a xam li xew ci sama njaboot mu ne xanaa amuloo ne muus ba ñu amoon ci kër ga faatu na bu yàggul ni juróom-benn fan moo ci tegu yow xamoon nga ko mu ne ko déedéet mu man xam naa mu ne ko sama doom jigéen dafa feebar yëg nga ko mu ne ko yëguma ko mu ne nag yëg ko te nga xam ne du jóg ci feebar bi dafay faatu juróom-benn rek dana faatu léegi ñëw xam nga loolu mu ne ko xaw ma mooy liyante bi gis nga ñi faatu foofu nga war ci def attention gis nga fii ci àdduna boo ñëwee jàkkaarloog nit mën na xam yenn ci sa bët jàngat ci yow xam la yenn nii waaye mën nga nëbbatu bi du la xam nga def cinéma bi du la xam waaye gis nga ruuxu bu faatu boo ko jegee rek daf lay yëg daf lay détecte boo indaale mer daf koy xam boo indaale rëy daf koy xam boo indaale bugge boo indaale kañaan boo indaale siis jikko yu bon yi boo ko indaale da koy gêné parce que daf koy détecte daf koy yëg moo tax nitu yàlla boo ko wala booy jege bàmmeel bu faatu setelat sa bop gis nga fi ci aduna bo doon ziaré ji nit ku bax di nga doon sang ba set sol say sol say yere yu bax parce que waxtu julli man la fa fek motax boy dem setin nit ku bax jappal ba set sol say yere dem fa parce que man nga yek rek ñu yekati julli motax ñu doon préparer fi ci aduna boy dem setin nak nit nit ku faatu ci bàmmeelam sangul dindil jikko yooyu noonu dindil jikko yooyu noonu ci sa xol bi ba mu ndax boo ko jegee rek daf koy xam moo tax bàyyi ci xel mu ne ko gis nga sama njaboot googu noonu dafay faatu léegi tey mu ñëw nee na ma ne biret dal di yeew suba teel ba ma jullee fajar rek ma dem këram ba ma yéggee soxna si gis mu ne waaw foo nekkoon xarit nii lay def boobu léegi gisuñu la nga bàyyi sa xarit bi ak njabootam dematuloo ñëwatuloo seet si mu ne ko baal leen ma xam nga jamono rek ak ni mbel ma joxe ngànt ñu indil ma ndox ma ne leen may leen ma tuuti ana néegam bi fi mu doon fanaan ñu ne fii la ñu dugg ci biir ma ne leen may leen ma tuuti ñu may ko mu ne fam ma wax ne foofu la denc alal ja ma dem teg sama loxo rek jàkkaarloo moo dal di génne indi nee na denc def ko ci sama poos ba ma génn see ne leen waaw da ngeen fi amoon benn muus mu ne waaw muus bu baax muus boo xamante ne góor gi daf ko bëggoon waaye muur ba faatu na fan yii nii dafa mel ne boromam la topp mu ne doomam bi ñu ngentoon fan yéene anamu ñu ne dafa feebar mu ci biir néeg bi nee na ma ñëw xool ko teg ko loxo ñu toog moo ne gis nga ko defal ko li defal ko li mu mën a wér man ne leen ah bu yeboo ngeen muñ rek nee na juróom benn fan lañ ci teg mu daldi fa alal jama joxoon ma daldi yëkkati ko dem ca yahud ne ko diw sangam sama xarit ndax daf la yoreel bor mu ne ko ku bax la nak waye yorel na ma bor te manuma ko wax njabotam parce que faatu na yorel na ma bor nag ñaata la la yor mu ne fukki deureum nee na ma yekati fukki deureum ya dal di koy teg ci loxom bama ko tek ci loxom dafa tit mu ne li kon xolal ki faatu na mu ngi ci bir bammel waye mu ngi fi di kon pour won la ne gis nga ñi faatu ñu ngi ci suñu wet di yek li ñu yek di dund ak ñu incha allahu beneen bu ci xejee ñu jottali yeggali da ca def allahumma aati nufuusanaa taqwaahaa fa zakkihaa fa anta xayru man zakkaahaa allahumma innaa laa nasaluka raddal qadaa bal nasaluka lutfa fiihi allahumma igfir lanaa dunuubanaa wa israafanaa fii amrinaa wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa alal qawmil kaafiriin اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسل بما يسجل البرك ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه